Cheikh bi. oui allo waaw. waaw Cheikh yaa ngi en direct non non non je comprends je comprends je comprends. voilà benn ayusé moo la woo yaa ngi yaa ngi en direct ci live bi. d'accord ma baale nga présenté wu ñu lay déglu mën a xam mën a xam kan kan lañ kan kan mooy wax ak ñoom. d'accord merci beaucoup sëñ Ba Diakhaté maa Euh, je suis consultant en droit et spécialiste du contentieux des affaires. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh. Pour, pour, faire simple, quoi. <laughs> donc ñu y allons. bu baax a baax a baax la aussi. qui mmh. aussi disponibilité bi. merci. Euh, mu mel ni donc fi ñuy duggee rek mooy euh, dégg nga li nga xamante ni moom appel bi nga xam avocat Ousmane Sonko defoon nañ ko au niveau de la chambre d'accusation mu mel ni chambre d'accusation dafa déclarer l'affaire l'appel irrecevable waaw yow euh, bu fekkee da ngay expliquer ñiy déglu ni déjà nga expliquer ñu euh, chambre d'accusation déjà mooy lan aussi euh, ndax li nga xamante ni chambre d'accusation bu joxe na ko aussi ci li nga xam moom mooy délibéré ndax lu jaar ci yoon la wala jaarul ci yoon. Hmm, jërëjëf baax macha allah tontu bi laaj bi am na solo trop. Hmm, hmm. bon comme ni nga ko waxee chambre d'accusation bépp bépp à chaque fois. contentieux pénal am maanaam yëfi pénal. Mhm. bu ñu topp nit. Mhm. bu nekkee procureur dafa jël dossier bi jox cabinet d' mhm. cabinet. bu la ko jox cabinet d' instruction boobu bu nekkee da da ngaa xel ñaar ne lim la àttee wala lim doxalee instruction bi am na loo xam la ci wala dafa jàppale dafa sooxe ci wàllu yoon. ci chambre d' accusation mooy jël appel bi parce que cabinet ak cabinet la. cabinet d'instruction mooy chambre cabinet d'instruction yi ñooy gérer yu premier yu tribunal de ci hmm. cabinet boo demee ci cour d'appel tur bi mooy changé hmm. cabinet d'instruction ñu koy première instance boo demee ci deuxième instance cour d'appel ñu koy chambre d'accusation hmm. mais cabinet la différence mooy chambre d'accusation moom du benn nit la dafa am ak ay conseillers ok loolu rek la mais comme bu nekkoon nag comme jugement la ni kon dañuy dem cour d'appel ci chambre beneen cour d'appel attatawaat maanaam defaat beneen tribunal mais instruction nekkul tribunal moo tax du dem ci cour bi day dem ci chambre lay dem ci chambre. ok te génn ci néeg demaat ci beneen néeg bu gën a kawe néeg ci mhm. ci matam voilà. Mhm, mhm, voilà. jërëjëf leer na kon chambre d' Euh, dafa mel ni rek comme nga ne cour d'appel mais ginnaaw ba dossier Ousmane Sonko demagul tribunal pour ñu àtte ko mën woogu ñoo wax cour mais chambre la ñuy wax comme ci voilà chambre la ñu chambre d'instruction fekk mi chambre d'appel lay nekk mm-hmm. chambre chambre la jëlee ci néeg voilà ok mu mel ni donc euh, li nga xamante ni euh, comment dirais-je ay avocat Ousmane soo ko dugaloon nañ ko muy euh, nu mu tudd sax l'appel bi ñu defoon ci ordonnance de renvoi bi juge d'instruction defoon donc c'est ça ça a été déclaré irrecevable boo ko doon jàngat noo koy jàngatee. boo ñu ko jàngatee mooy franchement pour képp koo xamante bi yaa ngi xam nga yoon ni mu doxee ci dëkk bi ak yoon tëddee maanaam ñu code de procédure dëkk Mm-hmm. code de procédure pénale boo ko déggee mooy code bi nga xam ne moom mooy saytu yoon bi ñuy jaar ba jàpp nit. Mm-hmm. yóbbu ko procureur yoon bi ñuy jaar ba yoonal nekk ci wàllu pénal. Mm-hmm. loolu ñu woowee code de procédure pénale. bi juge bi de renvoi parce que bu procédure pénale jeexee bu ordonnance de règlement. Mm-hmm. ordonnance de règlement mooy marché bi jeex na de suite marché bi. Mm-hmm. man enquête bi jeex na moo la koy ordonnance de mm-hmm. su ordonnance de na ko nappee rendre ndax li mu doon togg. lii la lii la jur wala lee la jur. léegi juge bi mu bi mu bi mu paree dafa rendre ordonnance war ne kat monsieur Ousmane Sonko mii li ñu ko doon toppee gis na ne njort ne. li ñu ko doon toppee am na lu mu ca laale. léegi bu gannaaw moom du àttee pour gën a leerlu na jëm ci ëttu àttekaay bi mu leeral ko. Mm-hmm. waaye njortu gi wane ne def na ko manque de qu'on appelle li ñu ooyee les indices graves et concordants. Mm-hmm. am daje na fi. Mm-hmm. gannaaw moom du àttekat. moom gis na ne bi enquête bi bare moom li mu jàpp ci xel daal moom ni ñu ko yóbbu tribunal ñu àtte ko mu gën a leer. nag euh, ordonnance yoon may na avocat yi nga xam ne ñooy partie défense bi maanaam ñi nga xam ne ñooy avocat Ousmane Sonko. ak avocat yi nga xamante ni bi ñoom ñooy euh, avocat partie mooy euh, avocat Adji yi. ak procureur ci bopam ku ne am nga droit bo ci amé lo neexul nga def ci appel. hmm waaye nak avocat défense ak avocat partie civile ñom seen appel dafa am fu ko yoon yemale. Hmm. mais procureur mom yoon amul appelam ci ordonnance juge bi amul dayo hmm loolu ñu ooyee appel à minima. le procureur de la République peut faire appel sur toutes les ordonnances du juge d'instruction. Hmm. waaw parce que c'est un euh, moom yàlla moo ko may doy googu ci procédure pénale. Hmm. bu ñu ñëwee ci kaw euh, ci bu ñu demee ci partie bi partie bi am na droit def am na droit def ordonnance ci am na partie bi am na droit def appel maanaam tey ay sax am na droit def appel ci ci bi su nekkoon ne juge bi maanaam dafa sel sa dafa sa salfaañe maanaam ay droit intérêt ay intérêt de euh, droit et mm-hmm. wala ci li nga xam ne moom la porté plainte gis na ne infraction yi am na mais juge bi ba ci mais munu munul def appel parce que juge bi dafa bàyyi Ousmane Sonko tey bu nekkoon dañ ko def dañ ko mettre sous mandat de dépôt mu juge ko libéré provisoire ay saa mu ngi def mu ngi def appel avocat mu ci appel. Mm-hmm. appel. Mm-hmm. mais fu mu toll nii pour euh, ay euh, Ousmane Sonko nag moo defoon tey appel ci ci ci ordonnance juge bi. Mm-hmm. lu tax ma ne képp ku jàng droit xam nga ne cour chambre d' accusation la mën a rendre décision bi. parce que Ousmane Sonko dafa am lu ko code de procédure may inculpé ki nga xamne mom moom lañ inculpé buñu ñu Ousmane Sonko il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Mhm. kon kuñ placé sous contrôle judiciaire kon de a inculpé. d' mhm. d'accord kon donc yoon téye na sa benn tànk. Mhm. voilà légui yoon daf ne ko bu nekkee ki nga xamne ne inculpé bo xolé ci article 180 du code de procédure pénale. parce que boy wax da ngay dut baaraam. article article 180 180 du code de procédure pénale. voilà dafa wax ne ah euh, le droit d' appel maanaam droit bi nga sañ-sañ bi nga xam ne ki ñu inculpé wala ki ñu jàpp am na droit def ko ci contre ordonnance bi juge bi rendre mhm. mi ngi ko mën a def ci ci cadre

article 129. du code de procédure pénale mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. article quatre bis lan la wax article 87 bis xamul wax daf ne inculpé bi ki nga xam ne maanaam mënul li mu mën a def appel ci bu nekkee procureur dafa demandé woon wala demander. demandé woon wala juge bi dans le cadre de soxla nañ saisir bien Ousmane Sonko tel bien tel bien tel bien def ko sous pour les besoins de l' mais est-ce que loolu am na ci enquête bi. est-ce que Ousmane Sonko saisir nañ ko. kon donc boobu axul. Mm-hmm. article boobu article quatre-vingt-sept la. bis mm-hmm. article quatre vingt-neuf ñëw. Mm-hmm. moom li muy wax ci wàllu liberté provisoire. nan lañ ko mën a joxe parce que dam na liberté provisoire mën nañ ko joxe ah foo mën a toll ci procédure institution bi mën nañ ko joxe bu nekkee juge bi la pour fois. parce que bu la inculpé li mu bu lay entendre da lay entendre sur les sur les faits reprochés ak les les les infractions par le procureur. Mm-hmm. mais doo wax doo am foofu lay wax wax na dañ inculpé soit mu doon la mandat de dépôt mu doon la contrôle judiciaire. Mm-hmm. léegi nag bu ñu dépassé phase boobu audition boobu première phase de comparution boobu. Mm-hmm. juge bu ah, avocat yi bu la neexee sa deuxième comparution bu la neexee double liberté provisoire moo tax à tout moment de l' mu leen di demander provisoire. article cent vingt est-ce que dans le cadre de cette de cette euh, de cette procédure là qui oppose monsieur Ousmane Sonko Adji Sarr. Mhm. est-ce que Ousmane Sonko dañ ko dóor mandat dépôt. Mhm. kenn dóor ko mandat dépôt. Mhm. kon donc moom il ne remplit pas les conditions. ok. parce que dóoruñu ko benn les conditions maanaam pour def euh, li ko yoon may pour mu war appel contre l'ordonnance du juge d'instruction. remplir article bi cent quatre article quatre-vingt-sept bis wax. ak cent vingt-neuf li wax ci code de procédure pénale remplir lu dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de saisie de biens, ni ordonnée par le juge, ni demandée par la parquet, ni demandée par la partie civile. Mm-hmm. Mm-hmm. Deuxième cas de figure, moi, article 129 loi, moi, il parle de liberté provisoire. Mmh. Dans ce cas d'espèce-là aussi, dans cette procédure-là, il n'y a pas de mandat de dépôt contre Ousmane Sonko. Mm-hmm. Voilà. C'est ça. merci waay leer na de donc amul lenn ci li nga xamante contre code de procédure pénale muy yoon bi muy li ñu tëgg muy li doomu sóoraale na ne Ousmane Sonko ak ay avocat war nañ mën def appel ci li nga xam moom la jupi jël dossier bi yóbbu ko tribunal pour ñu àtte ci la léegi pare nañ phase u euh, chambre d'accusation ci lan lañ jëm présentement comme doon avocat Ousmane Sonko bi la neexee ñu def euh, def pourvoi contre la contre xam nga la la le tribunal de première instance le tribunal d'instance la ce qu'on appelle des jugements ou mmh. bu ñu doon chambre d'accusation gannaaw cour d'appel lañ jëm d'appel bi tur bi dafay changé. Mm-hmm. këyit bi Maham Diallo rendoor ordonnance lay tudd. Mm-hmm. mais fi mu doon këyit bi chambre d'accusation di di di rendre moom. Mm-hmm. arrêt lay tudd arrêt. cours ra des arrêts. le tribunal rend un jugement. la cour rend un arrêt. voilà. fi mu doon ne Maham ordonnance la boo xam ne bosum tuddoon. gannaaw mi ngi ci néeg ba ca kaw néeg ba ka kawee ne ci kawam. Mm-hmm. bu demee ci néeg ba ci kawam ordonnance tudd day changé tudd ordonnance. Mm-hmm. ah non arrêt lay tudd. arrêt arrêt mm-hmm. voilà léegi nag bi fi mu ne avocat de la du prononcé de la décision xam pour def ce qu'on appelle pour demande ñëw au greffe def demande dañuy def pourvoi greffe au bi juridiction bi rende décision fi lañ koy defee. de tey. ok trois jours pour def waaw. pour décision bu la neex ci pourvoi devant la chambre criminelle de la cour suprême. Mm-hmm. voilà am ci mm-hmm. droit. les mm-hmm. les délais sont suspensifs. les les les effets de la les effets de la de l'arrêt sont suspensifs sauf bu amener exécution provisoire. voilà Fontoni, ni mënu ko procureur mënu mënu ko ci chambre criminelle il faut procédure bi jeex pour avocat Ousmane Soké, à partir de aujourd'hui am nañ trois jours yaakaar naa suma juma trois jours pour def ce qu'on appelle déclaration greffe dañoo bëgg def pourvoi. voilà pourvoi en cassation quoi. ok maintenant maintenant chambre chambre criminelle bu cour de cassation euh, cour suprême am ñaata fan moom pour déli pour pour pour pour euh, vide dossier bi. bon fu mu doon ñoom avocat Ousmane Soké, il faut ñu xaar arrêt bi génn arrêt bi. Mm-hmm. su arrêt bi génnee. Mm-hmm. ñoom après dañu def signifier arrêt dañu dañu fu doon chambre d' accusation daf lay war a signifier arrêt bi. arrêt bi war naa dans quinze jours normalement. dans quinze jours. waaw normalement dans quinze jours maximum vingt et un jours arrêt yow mm-hmm. dix jours yu si yëpp dans quinze jours lay génn mais maximum gën saa sori vingt et un. léegi su génnee ñoom dañuy signifier dañoo def dañoo oh, dañoo def oh, pourvoir dañu koy signifier le président de la chambre signifier ko aussi avocat avocat Adji Sarr mm-hmm. à partir maintenant de la signification ils ont deux mois pour produire leur mémoire yaakaar naa am nañ deux mois. Euh, mooy mooy tribunal. waaw ah, ñoom ñoom ñoom ñoom aji ah, ñoom avocat yi. ok avocat Ousmane Sonko yi. waaw am nañ un mois xaw ma deux pour bind. pour war a bind suma jumale am na deux mois. bind lu ñuy bind. dañuy bind mémoire maanaam déposé lu tax ñi ñu ñu ñu def ñu def cassation bi daal lu tax ñu def pourvoi bi. ok ok. maanaam comme ça de conclusion la ñu bind genre la. mooy conclusion yi avocat yi déposé fa am matière kii daal. te loolu yëpp yoon day taxaw di xaar. yoon day taxaw di xaar waaw mais xam nga. affaire yi pexe la rek parce que daam ay pexe ñoom ñu seen lan seeni pexe mhm, mhm. xamante nañ mhm. parce que am na ay pexem du leen ko wax moom it am na ay am nañ seeni pexe c'est la c'est-à-dire c'est il faut croiser le fer avec le parquet xamante nañ euh, procédure yi yàgg nañ ci tey lañ commencé procédure yi ndax lu ma la wax procédure match de football la chacun essaie de tromper la vigilance de l'autre voilà en respectant ce qu'on appelle les armes les armes conventionnelles la Parce qu'ici, c'est le, le, code de procédure pénale qui encadre la démarche de chacun. Hum, hum, hum. Voilà. Mais le tribunal, il n'est pas allé. Le tribunal, en tout cas, normalement, vous n'avez déposez vous déposé une mémoire. Vous n'avez les la Cour suprême, dans les 48 mois il à terme. Voilà. Donc, il a pas de ben délai, Cour suprême. Un la de suprême. Un coup de cassement de ben délai. Si nous déposons, si on est dans les 48 heures, le sol 12 heures, Ok, ok, ok, ok, ok, ok. Mm-hmm. Mm-hmm. leer na su boobaa nag su waxee su ne Ousmane Sonko li nga toppee wala mun naa wax na cour suprême boobaa mun naa wax ñetti mbir. Mm-hmm. mun naa wax ne ordonnance bi dafa am lu ci lay lañu dañ ko dindi dañ delluwaat ca xam mu mu mu xoolaal yenn yi. na wax ne aussi li cour suprême di wax ànd su boobaa nag bu ne li cour suprême wax ànd naa lu li kii wax ànd lu lu chambre d'accusation wax ànd su boobaa nag ja kii kii tàbbi géej wax ci jeex wax di jeex na dañuy dem procureur ok ok ok qui fixe la date ok maintenant une fois que enrôlé nañu ba def na procédure guddal jël bi quoi parce que nous moy procédure guddal jël. Euh, parce que ko ni ak fuñu mais ils ont juste euh, euh, voilà dañuy utiliser les lois de la justice. voilà dilatoire quoi maintenant bu démé ba ñu ñu lay euh, procureur aaral le dossier bi japp nañu date pour jugement. waaw que devient maintenant euh, num mu tudd sax la mise sous contrôle judiciaire de Ousmane Sonko. Ah, non boba comme ni nga waxé won ci euh, les dispositions du code de procédure pénale sur la présence de l'inculpé fu mu bu ñëwé fu mu xam nga dañ ko contrôle judiciaire. day mm-hmm. projet bu nga jappé la chambre chambre le président bi nga xam ne mënuñ désigner xam nga déjà on a désigné les su ma juumee yaakaar désigné nañ ñi nga xam na ñoo wara a gérer dossier bi. Mm-hmm.